ànd ak nasaraan bi 40 ans la am ànd tubaab bi de suñ tubaab bi muy ànd ak tubaab bi màggatul 40 la am am ci tubaab yi ñu koy xoole bëtu jeune mu jommal leen mu jommal nasaraan bi jommal gu gu gu doy war Cheikh Ibra Faty ñëw ndar jaxase protocole bi changé protocole lu tool ni gouverneur général ndar yi ndar kafane yilif Afrique occidentale française gépp di mu ponkal ku mu jàpp kenn du ko laaj lu tax ku mu rey kenn du ko laaj lu tax ñaar yi amu ci lu ñu doon laaj tubaab bi xam nga tey président bu rayoon nit président de la république bu rayoon nit bu subaa ñu laaj ko lu tax mais tubaab bi jamono boobu muy woow sëñ tubaa ku mu kenn du ko laaj lu tax ceerno bi muy ñëw xam na ni kii ku mu ray du ko laaj lu tax ku mu tëj kenn du ko laaj lu tax ceerno ñëw ki nga xam ni moo dox diggam ak moom tàllal ko palaat ni ko dangay teg fii lettre bi ma jottali ko ko Thierno ni ko sama loxo ak loxoom mbaa ma delloo ko ci kama ko joxoon. ay waay tubaab bi dégg polémique bi insister kooku interprété wax tubaab bi ni ko nee na sa loxo ak loxo tubaab bi d'accord téye palaat bi Thierno ni ko teguma ko ci. nga xam ne tubaab bi dañuy waaj bàyyil ma jël ko tàllal borom daru teg ci lettre bi mu joxe ñu jàngal ko loolu rek wan la leen nii kii waaj a ñëw keneen la moom. waaw loolu rek wanoon na tubaab bi ne kii waaj a ñëw keneen la moo tax. ndax ndax diggante commandant Leclerc commandant Leclerc mhm. bi nga xamee ni maam Thierno Ibrahima yi jóge na ci tubaab bi. xam nga mhm. tubaab bi wax na Thierno di ko yow loo wax dëgg la. waaw nga ñëwee ci man rek tax na ma xam ni loo wax dëgg la. Mhm. waaw mais damaa bëgg ma ni sa mag dina ñëw boo demee rek. maa ngi yónnee télégramme fu ñu dabee Leclerc dana fa campé ba suba ci tisbaar yónni woon naa ko ngir mu jëli ko waaye fu ñu ko dabee dana fa dana fa campé ba suba ci tisbaar ndax ndax doyloo gu ma doyloo sa wax. Cheikh Ibra Faty wax nañu bi mu jaaree ci la Leclerc tubaab yi danoo démonstré ci kanamu borom daaru boobay Leclerc bu rayee kenn du ko ko laaj. déedéet bu rayee nit ku ñuul kenn du ko ko laaj bu tëjee kaso nit ku ñuul kenn du ko laaj commandant boobu. mu anda ak ñi ay nit ñu démontrer seen jassé ak seen affaire ci kanam borom daaru manam ñun mën nañ la ray fi Thierno bàyyi leen ba démontrer ba dal mu signe mu tru wacce gis bi le nee na mu ñu borom daaru gogu ça me dit quelque chose trop trop trop trop de choses mm-hmm. lu bari wax na mako ko eh ça beaucoup ndax ñi démontrer ci kanam buñ ko rayon du graw ci ñom tuba bi leen laaj lutax ñu ba paré borom daaru ray <laughs> eh waaw fal tak fi jawra li man yuraa yi wallaay ndeysaan rek borom daaru googu Leclerc nee na dafa yàq sama bopp bi ndax damaa xam ni kon kii ñëw keneen la ndeem rakkam ji moom lañ def lii ba noppi mhm. tiitul raful yënguwul mën naa noppi sax ñu xam ne caractère la muy muuñ <laughs> loolu leneen la moom maa la ko wax sëñ Darou Moussa maa la ko wax ci at yu néew yooyu ah mhm. te sax li ci yéemee mooy eh, ni nga ko waxee lekk Leclerc ndax tubaab bi boobu dafa ne force bi yëpp nañ génn ñu gaaw campé géwul ginnaaw bi la joxe alerte ne nañ ko may Thierno yegg wax ak moom bu yeggee wax ak moom xay na ñun liñ bëgg mais ñoom liñ ordre bi ñu jotoon mooy bu ñu egsee ñaaree am dem. mbaa ñu yow la yóbbu. mbaa bakkan maanaam ñoom ñaar yooyu moo leen indi woon ci moom euh, sëñ Saliou laal nga laal nga lu yéeme soxna jaara gis nga gis nga dafa dugg ci. Mmh. dafa dafa dugg sax ci insaaniye gi maanaam. ñëwagul ci mayi suñ borom yi dafa ñëw ci boo xoolee soxna jaara ci nit kese doomu aadama boo xam ne jàmbaaram ak bëggam lu baax ak xam li ko sama borom euh, sant ak li koy xaar tax na lépp loo xam ne ci kanam rek aw fitam may na ko mu affronté ko ndax dafa waxoon ne du ma reculer dellu ginnaaw moom bokkut ci man ki ma wéeru itam xam naa ne du daanu mukk lam waxoon ne sama dellu si moo ma gën a leer sama dem foofu nga dugg yow da dugg ci maanaam nit koo xam ne dangaa taxaw justice taxaw ñu jàkkaarlook yow war laa juger nga taxaw ñi ngay waxal nga gën leen ñeme te booba nañ waxante dëgg booba nit ñi ñemewuñ tubaab bay Faal yii di si kar képp ay jamono ci ginnaaw kenn mus leen a ñeme Baay Faal bu ci yoru kuur di jaar ci mbedd mi majjal xale du teree ni ci mbedd mi waxuma la ak booba tubaab booba ku ñemee tubaab noonu ku ko amul respect bi tubaab bi jox sëriñ bi moo waral mu demee nii mu demee nii tey ndax suko ko ko joxul won tay serigne bi du ñëw samp tay itam pourquoi serigne bi lutax muy serigne bi ndax lim tek ñu bari bëggoon nañ ko waaye kuñ ko yërnduloo boko ko ne li mom suma ci duggé dama ci dess nga reculer té momit bimu ñëw da ko ne détachel ñëpp man rek man na dem xam nga yaangi ngi wax légui bi exé ci ci géej gi bimu wax naan ndax lool bi ba ma yomba ba na amna na moment yoo xam day gis muy dóor mu leer ko ne euh fofu nit tawat fa dafa yomb parce que xéti matat ya fa am ak climat bi ni mu amee doo tàggoog soj génocide yu baree bari yo xamné ni fofu la nek ci Gabon. tay nga nek fofu di dund environnement bobu waye fofu la gëna cédé fofu la gëna cédé di gam ak borom li yashhad bi kawni abda man yaghfiru dhanba wa kawni khadimul mustafa bahru ma c'est-à-dire déclaration sëñ bi bi fi sëñ mo ron seen li nek ak déclaration sëñ tuba au présent ni 2024 musul sopé ko benn kaddu la am waaw. xam nga nit sax di nga gis sax dem foo xam ne gars yi parce que gars yi koo fi woo bu demee ci bureau yi nag changé discours de bu la gars yi di enquête tegal la siis bi jàkkaarloo yow Sidi bu la laajee ñaari question xëbal la di nga ne lu ñu boo ko deful sax di nga ne def ngir bëgg a tàqali ko eh, am dama lay wax lu neex. waaw. doo yegg ci bureau ba fii Sénégal <laughs> doo yegg bureau képp procureur laajal Sidi. Eh? gars yi duñu yegg bureau ba de. gars yi ndax diw yëg na ko la ñuy wax bu convocation bi ñëwee rek. ñu <laughs> ma joxoon convocation. waaw ma naan si di wool Amidoune. ne ko dañ maa woo bis sàngam. Mm-hmm. kum fa xam. Mm-hmm. bu ma am waaye ne ma sa si di nee dama laa dañ laa dañ laa yónnee ko ma ni ko ndax sëñ diw yëg na ko ndax soxna sàngam yëg na ko. waaw fexeel muy fexeel muy moom mu jiitu ma fa. maanaam kàddoom jiitu ma fa. bala maa dem damay wut kàddu gu ma palais de ku kàddoom diis. ma door a dem waaye nga war a dem yónni sa rakk mu ñëw nga ni ko bu ma wax dara damay dem ceerno bu ma yàggal jot naa ndigalu sa borom ci dem dox ba mu yàgg tudd ni ko dugat sama kër gi aram na dëpp dog yoon wi di dénkaane gone yi ñoo ngi jéggulu ci wax ñu nag booba ñoo ay goneen mm-hmm. Cheikh Moustapha Mbacké Sëñ Fallu Mbacké jàll dañu tubaab bi jéewal am ah, ngi wax lu riche léegi sëñ am mhm. wax nga lu riche am nga lan moo riche mhm. ñee ci tundu tund wee nga wet ci tund wii mhm. ngeen wara a ci xur wi nga jitu fi eh, way <laughs> waxat ko lu da riis de waxal li wax ay waxatal lu <laughs> ye dal jox addi nga wéet ci fi nga taxaw ni wéet ci tundu wi ñee wettaliku lool ba nopi yori gannaay ñu ne tund wee nga ne tund wii nga wéet fii ñu wéetaliku yoroo gànnaay ñu yori gànnaay ngeen war a daje ci xur bi nga jiitu fi gars <laughs> yi bàyyi wu yooyu xel ni sëñ tubaab bi la clerc ak tubaab bi taxawee fee war fas yi seen ngi mi ñu fetal yi mel ni dugub ju focc ci jëm asamaan ñu bari lool sëñ tubaab ne fii moom kese côté bii ñu jàkkaar lool waaw waaw nga wéet tubaab bi jeewal. wéet ci tund wii lool. yow kot ñu wétaliku ci tund wee lool. ñoom mbooloo ma. ngeen war a daje ci xur wi. nga jiitu fi. Amadou wéet ci tund wi. ñu wétaliku ci tund wee. ngeen wajje daje ci xur wi. Ahmadul Xadim jiitu fi. lii moom mosuma dégg li lu mel nii. tunduwe ñoom ñu wétali ko ci tunduwe ngeen war a ci xur wi ahmadul khadim jitu fi mais il faut ngeen sax yi jëlal ma ci euh, ci passé ci plateau safar Euh, ah, niñ koy defee ragalu leen de danañ tànn ñaar ñoo xam danañ leen jox ticket eh, li nga xam ne ni mooy euh, climatisé bis climatisé ngir dem màggal loolu seen puce préféré muy promobile moo leen ko may àndandoo ceeg la promobilière CI mi nga xam ne ni mi ngi ci bâtiment yu taaru yu yanj yi nga xam ni euh, ku ko bëgg rek fii ci almadi F1 F2 F3 F4 yëpp incha allah dina jàppandi lool ngir nga jot ci bu ko defee soxna Mariama dama lay bàyyi balaa sëñ Ndiasse ak sëñ sëñ ndax Euh, sopp yi heure boo leen invité sopp yi dañ lay woo di la wax ñoom cofeel guñ am ci ñoom ak bëgg guñ bëgg sëriñ bi te bëgg naa itam nit ñi mën di leen jot ñu joxe seeni numéro ndax ñi may message di ma wax ne euh, bëgg bëgg nañ ci ñoom ñaar wala dama leen sopp bari na lool euh, te loolu itam tawféex la sëñ daam Ngom maa ngi lay ziar ci Ziguinchor ndeysaan yow da baax baax murit nga sëriñ benn boole nañu waajal bu baax a baax bis bi incha allah soxna Mariama nga baal ma jàppal ma ci numéro bi